لا إله إلا الله salaamaaleykum mbokk Makhama TV ñu ngi leen nuyu di leen ziar ñëwoon fii tey ci dal Baye Moukaram Serigne Aidara Mbacké yaakaari jàmm ñëw eh, ci nganam Serigne Aidara Mbacké fekk fii jëwrin Ibrahima jëwrin Cheikh Abou ak Serigne Matar di leen eh, ngeen sëñ Cheikh Abou ñu ngi ziar bismillah alonzu billah bismillah dina wal yàlla jërëjëfati sëriñ Touba jërëjëfati sëriñ Touba jaarama borom daaru almuxti kenn du Seydina mu karamu Cheikh Aydara Mbacke ibnu Ahmadou Baydam Fati Mbacke ibnu maam Coono Ibra Fati yàlla na sama borom bi guddal ay fanam loolu te wéray cëram di siyaar mboolem waa adduna bi yëpp di siyaar waa diaspora bi di santaat nag bu baax a baax ngir sëriñ bi dimbali gi ñu dimbaliwaat fii ci France ak sagal gim ñu sagalaat fii ci France mbooleem taalibe bi nekk France yëpp ñoo ngi koy sant bu baax ak di ko gërëm ndax lim ñu defal daa rëy ndax kilifa bàyyi yitteem bàyyi lépp ngir ñëw daral ñu daggiwaat dongo yi tënkaat leen ci ak jaamu yàlla tënkaat leen ci ak sellal ak jëfe ndigal bàyyi tere loolu dafa rëy loolu ci ñun moom tamit ñoo ngi koy ñaanal mu yàgg fi loolu te ànd ak wér kenn ku ci ne ci ñun ba ñu nekk lu ndaw la ñu xamante ak sëriñ bi sëriñ bi tàggat ñu ci jaamu yàlla tàggat ñu ci sellal tàggat ñu ci ay jikko yu rafet tàggat ñu ci nangoo liggéey nay liggéey ñu fonk seen i liggéey nay jàng ñu fonk seen i jàng ba tey moom mu nekk ci pàcc bu sori sa fa muy nekk ñun tamit sëriñ bi dimbal lañu tënkuñ ca taaliba ba xëy suba tey mu dafa ñu garatul cheikhul bi jox ñu mbooloo foofu ci marché bu bees nekk fa di fa liggéey di ko ko liggéeyal nag bu baax baax kon Serigne Aidara Mbacke ñoo koy sant nag bu wér a wér a wér mbooleem région Paris bi yëpp nag waaw suñu limee nag dañuy juum ndax ñëpp ñuy sant ndax daanaka semaine la fi def wante semaine bi fi def yëpp taaliba yi ñu ngi jóge fu ne waa Marseille ñëw nañu waa Bordeaux ñëw nañu waa Toulon ñëw nañu waa Toulouse ñëw nañu su ma jimee damay su ma limee rek damay juum ndax wa maanaam mboolem ñu nekk France rek ñu ngi ñëw Saint-Lazare rek ñëpp ñoo ngi ñëw tamit di ñëw di ci sëriñ bi ak waa Jéesu bi yëpp kon ñoo ngi sant Seydina mu karamu Cheikh Aïdara mu yàgg fi loolu te ànd ak wér ñëw na dimbali ñu daf noo dimbali dimbali ku leer ndax dimbali gi tàmbaliwu ko fii Sénégal la ko tàmbalee te mu maanaam mu topp ñu nag ba fii kon dañ koy ñaanal mu yàgg fi loolu te ànd ak wér ñoo ngi siyaar ñëpp di bëggee ñëpp nag moom Seydina Moukaramou ñu ñaanal ko mu yàgg ci loolu te ànd ak wér danaan jërëjëfati Serigne Aïdara Mbacke jërëjëf Serigne Aïdara Mbacke suñuy wax ci moom suñu xol day fees ngir lum nu defal daf noo jomb kon moom mënuñu loolu di ko ñaanal mu yàgg ci loolu te ànd ak wér ndax nii rek la mën a mel kuy bàyyi Ahmadou Baye Dame Faty Mbacke kuy maam moom maam Thierno Ibra Faty kon su meloon nii rek daf ñuy jaaxal kon jërëjëf Seydina Moukaramou Cheikh Aïdara Mbacke jërëjëf sëñ Matar bismillah kon ñoo jox la kàddu gi waaw di bi eh, leen nuyu di ñëpp di leen eh, jox seen wàccuwaay sëñ bi moom teewaayam fii wax dëgg dañ ci eh, dañ ciy bëgg lool lool lool am ndax ñun moom daanaka bañ koy bañ koy gëj gis yàgg na lool waaw te mu doon jëmm joo xamante ni dañ ko yàgg bëgg lool waaw dañ ko xoolee man ba dugg si yoonu ah, laa woon mais dama daan exemple liggéeyal sëriñ mën naa ne sëriñ Touba mais sëriñ Aïdara Sylla voilà si côté am laa nekkoon doon doon doon doon bay sama waa si yoonu sëriñ Touba si lu yàgg yàgg yàgg te li ko waral mooy tëdd guddi yee am gént bu ma gént waaw muy sëñ bu mag mu nangul ma njébal bi tamit ma koy jëm jébalu si moom waaw donc jëmm la joo xamante du ñëwum intérêt ndax bari na si kilifa yoo xamante ni bi ñuy ñëw ñoom ñëw si seeti seen taalibi si nii en retour li ñuy ko li ñuy xool rek mooy li ñuy yóbbaale mais fa ñuy a gindi seen taalibi di leen tegaat si yoon ñoom yooyu doxuñu si te sëñ bi moom boo xoolee waxtaanam gépp gépp gépp yàlla ñeent li sëñ Tuuba képp loolu déggaat leen jox leen ma at yi def leen nangam def leen nangam doo ko dégg si moom doo ko doo ko si dégg si moom dafa amoon kàddu boo xam ne doon faral di wax

Euh, bah, au début, j'étais vraiment impressionnée. Parce que c'est la première fois que je le vois. Mhm. Et je sais que c'est quelqu'un de haut placé, si je peux dire. Mhm. Euh, voilà, ça m'a impressionné, mais bon, mhm. après, j'étais vraiment content de, le voir en face. Et, euh, bah, en tout cas, ce que je peux dire, c'est que c'est quelqu'un de bien.

ñi nekk fii ci France ak ñi nekk États-Unis ak fépp fu waay mën a nekk di taalibi sëñ bi ci àdduna ak ñi nekk Sénégal ñoom leen di ziar di dolli di sant sëriñ bi bu baax a di sant sunu borom ci boole ci ñu boole ci liggéeyam bii waaw ngan gi nag moom ah, xanaa dolli sant rek ndax wax dëgg yàlla ñepp gis nañ ni mu démé sëñ bi mu ñëw ba légui taalibe ya eh, nga ñëw di dem ko leen di ñëw siaré ci wax dëgg yalla muy mbékté ak tawfiq ak cant rek ak cant rek voilà bég nañ daal suñu mbékté daal foko nat rek weesu na ko c'est ça ñu ngi rappelé que yaa ngi jógee ba Loire Atlantique Nantes waaw eh, ku nekk xam ni Nantes xaw naa ak Paris Euh, ñu ngi la ciy sant di la gërëm euh, maanaam bi nga yëgee sëñ bi mi ngi ñëw noo ko noo ko dundee. waaw mbégte rek mbégte ak euh, ak tawféex ak sant bu baax a baax a baax a baax mm-hmm. ndax ñun ku ñu xam-xam ne amuñu ku dul sëriñ bi. Mm-hmm. te ku xam tamit xam ne nu mu mën a mel ak lu mu mën a amit lépp moom la. waaw ndax ñeex. ñi ñu xam te miin suñu jëmm ji euh, umpale wuñu fi ñu jëlee ak fi ñu indi tey waaw kon jàpp naa ni fenn du sori ci ñun euh, ngir ñëw taasu ci barkeem euh, te it siyaare si ko fu mu mën a nekk li mu defal dafa dafa gën a dafa faw xol lool jóge ay nant di ñëw Paris mm-hmm. waaw la ni su nekkoon sax ginnaaw asamaan ñu xam ni ma nga te ñu am jumtukaay pour ñu fa rek daanaka. jërëjëf euh, ñu ngi leen di sant bu baax di sëñ bi euh, dafa am mu jaar jaar mu jaar ñun nag tax na fu mu egsi fu mu munti dem dañuy yàlla dafa def nag ñu waroon a dem ba Sénégal France donc euh, daf ñoo jàppale. ci biir jàppale boobu nag dañuy sant bu baax ci ñëw bi ñu ñëw ci nga bi mm-hmm. di ko bu baax a baax di ko kër sëñ Ibrahima euh, ñu ngi lay nuyu di la ziar te la laaj noo dundee nganuk sëñ bi sëñ Moustapha ñu ngi leen delloo ziar di leen màggal euh, gan ciy wax xam ne ne sëñ bi ginnaaw bi mu defaree ñoo xam ne mën nañoo nekk ci bureau yi wàllu xam yàlla tamit euh, danañ ci danañ ci xiir bu baax a baax nga tax na képp ku mu am rek muy njabootam loo xarañ xarañ ci wàllu saayar si wàllu tubaab yi wàllu xam yàlla ak maxrifa ak marale la ak sa borom daf ko daf ko yitte lool loo tax mu soog ci taalibam yëpp loolu rek a waral jéegoom yi mu def jóge réew ba réew ngir ñu ñëw saytu ñu sàmm ñu xool ba xam fam ñu defoon noonu fa ba léegi te alhamdulilah ñu ñëwee fekk na njabootam gi kenn ruuru loolu day wane fondement bu baax rek ñoo bi njaboot yëpp ñu ñuy saayee commencé leen wuyu si wàllu àdduna bi mm-hmm. ñuy jëf rek ñu ngi ciy seen borom mm-hmm. ba tax na loolu sant yàlla bu baax la te tamit bi mu ñëwee ba léegi ci njabootam rek la tàmbalee te ci lay am mm-hmm. ku mën a wàcc ci sato dem dalal borom barab moo yëg na borom barab bi ndax sato jomb moo tax ñu ngi sant bu baax a baax a baax di leen suñu borom bu dolli ko

tey buñ demee bay egg fenn fii ci Serigne Touba am na ci wàllu rëy rëy rëy rëy di ko ci sant di ko ci gërëm waaw moom daal mooy dundal xol yi maanaam mën naa ne man mooy yee sama ruu ci Serigne Touba dama maanaam bi mu ko xamee léegi daal di ñu naan ak judduwaat laa def mhm, man ko ciy sant di ko gërëm bu baax di ñaan balaay si yàgg fii te wér ak njabootam yàgg fii te wér yéen ñii ñëpp ngeen yàgg fii te wér jërëjëf Baye Moukaramou jërëjëf Serigne ay Mbacke